Mbaro di face à Parki bi dem na combat bi dem na combat bi dem na li mooy quatrième wala cinquième cinquième combat cinquième combat de la Mbaro di face à Parki waaw Mbaro di moo jógee moo jógee Sébikotane ndeysaan waa Sébikotane ñoo ko indi situation bu Sébikotane moo ànd ak moom seen naa fi boy Sébi seen naa fi lii joor doomu Sébi Tidiane Faye la rek la ci Tidiane Faye doomam la attention e mi ngi koy jaajoole waaw waaw xandal na ko léegi waaye Marodi dafa résister Marodi dafa résister Marodi dafa résister noonu la fa demee Marodi moo ñu wan ginnaaw non perk perk moo ñu wan ginnaaw attention da koy daan attention da koy daan lay daay dañ la eh Marodi sew dis na de Marodi am na doole de non Marodi am na doole ah mais xoolal mu génn xoolal fi mu génn. ah ma ma doon indi alpulaar la. waaw yow fula fula du. waaw na ko doon bandum. na ko bandum waaw waaw. waaw fële wax loolu waaw waaw. yéen a ko bandum. dana tey sax yéen a ko bandum. waaw waaw loolu dafa leer. mais nag fii làmb la de que le meilleur gagne. waaw a ñàkk. que le meilleur gagne. waaw waaw man booy yëpp samay rakk lañu. waaw booy yoon perk bu saar perk bu saar. ak kii di Marodi Marodi nag su ma juumee kii doon daan da nekk ah. waaw waaw kii di doon daan da nekk Marodi. noonu la ko noonu la ko moo nekk écurie Lansar noonu la fa demee moom mooy cinquième combat de la soirée attention soog la wat na ko eh da koy daan attention waa Marodi Marodi ko Marodi Marodi ko Marodi Marodi gaynde la gaynde gaynde la Marodi gaynde la waaw mais Marodi bi attention waaw mais kii ndaanaan la de waaw waaw non mais xoolal fi mu génn dañ koo jékku mais da ciy day bëri ba génn ci non non ndaanaan la de Marodi bi comme ni ma leen ko waxee waaw waaw c'est la mi-temps la mi-temps wala ren du waa ci biir géew bi. wax ak perki nee na leen ñëwaat leen si digg géew bi mais mënoon nga leen bàyyi ñu bëri rek monsieur l'arbitre waaw sible waat na sible waat na génnaa na seen diggante sama gars yi comme ni ma leen ko waxee tey la dimanche 6 août 2023 ñu ngi l'arène nationale le promoteur Ibra Diouf à la tête de la structure Ndeban production moo organisé Ndeban production moo organisé waaw waaw attention attention daw naa ak moom attention Marodi face à Perk waaw waaw waaw ni naan saako yi bëri nañu de bëri nañ combat ini metti bëri nañ combat bu metti ñaari ndaanaan lañ waaw waaw ñaari ndaanaan lañ boole ñaari ndaanaan lañ boole xam nga ko leen ci xeer yi day naan kane moo ëpp doole ndeysaan non fekk moo gën a fees waaw waaw moo ëpp poids moo ëpp maas moo ëpp yaram waaw moo ëpp maas mais lagi. jàpp naa ne di doole lagi. mais comment mi commencé yàgg léegi ñu mi-temps de léegi ñu mi-temps léegi ñu mi-temps léegi ñu waaw waaw combat bi dem na sànq bi combat bi dem na combat bi dem na waaw waaw combat bi dem na combat bi demaat na attention diggante Perk ak Marodi ñoo ngi ci deuxième mi-temps bi ba dañ premier mi-temps ba mu jeex ñoo ngi ci deuxième mi-temps waaw waaw waaw waaw waaw waaw diggante Bargny ak Marodi combat bi yàgg na métti na bëri nañu lu métti waaw waaw diggante Bargny ak Marodi jaajëf brother nice bye waaw waaw combat bi combat bi métti na instant bi la Fatick commence à se sentir ndeysaan waaw mel na dañoo commencé yëg coono ñaari mbëri li ñu fournir moo bëri Zarki ak kii di euh, ak kii di Marodi la de Marodi ndaanaan la Marodi si mu génn ci Marodi si ñaari yoon mu génn ci mënoo ko boo amul doole mënoo ko arrêté na combat bi lu xaw arrêté na combat bi avertissement Marodi am na benn avertissement waaw waaw waaw mais lu mu def lu mu def lan la def deful dara deful dara waaw waaw mi ngi dox ci kawam attention eh eh eh eh, eh. wooy attention attention attention eh eh mi ngi koy accéléré mi ngi koy accéléré attention da koo bëgg a dóor mu daanu attention génnaat na You're not now. You're not now. laaj Pulo dogata Pulo dogata ndeysaan moo tax mbëro di wane na jàmbaar tey wane na de waaw waaw wane na jeex na jeex na ragal naa ni Perti gagné na combat bi ragal naa ni Perti gagné na combat bi ah way ah way ah way ah way ah way ah way ah way Perti gagné na combat bi Perti gagné na combat bi gagné na gagné na gagné na